yoo xam ni ak jafe-jafe yi ñu am ci euh, Covid bi wax na aussi ni ñu relever plateau médical bi wax na ci agriculture bi wax na taxawaay bi mu ci def pêche bi la même chose wax na ci wàllu diplomatie euh, wax na wax na ci yu bëri yoo xam ni franchement rafetoon na aussi peut-être xanaa nga ni kat lii mën nañ ko apprécier peut-être. waaw maa ngi lay euh, sant ci question bi effectivement suma première intervention c'est une intervention à chaud sur le discours ci lees waxul. Mm. li mu waxul te ma yaakaar ne c'est des question de fond d'option ci ku jiite réew ci condition yi monde bi toll pour man question yooyu mënuloo ko fàtte essentiellement dund nit ñi ak gouvernance non li ëpp solo mooy naka lay financer développement bi ci endettement la ko wéer yàgg naa ko wax aujourd'hui ñëpp d'accord nañu ci monde bi que ñetti problème moo lëmbee pays sous-développé yi mooy endettement bu élevé ak service de la dette bi nga xam ne ak intérêt yi kenn xamul nu mu toll. ñëpp gis nañu ne obstacle la même bailleur de fonds yi moo tax bi Covid bi amee ñoom ñëpp dañu daw def ay facilité ñaareel bi ñëpp d'accord nañu ne pays africain yi li ñu am ci ressource naturelle mën na leen dundal ba dundal monde bi te tiré wuñ ci suffisamment de ressources pour développer wu loolu ñëpp ci d'accord ñetteel bi ñëpp d'accord nañu ne réforme yi ñu war a def. pour que Afrique siggi ci wàllu capital humain ci wàllu organisation ci wàllu digitalisation defu ko ñëpp d'accord ne en dehors de ces trois points la ci wàllu sécurité Sahel mais est-ce que yéen gis ngeen li xew Mali aujourd'hui dama ne fii ñu toll nii nga nekk ci réew boo xam ne réewu escroc la ils passent leur temps à faire de la fraude du trafic ba ci sa biir institution tu n'as jamais levé le petit doigt pour le condamner ma ne man loolu jaaxal na ma am naa ci droit loolu mooy lees waxul li mu wax nag ak li mu def buñ ci tolloo dinaa leen wax man li ma ci gis ne baax na li ma ci gis ne tane na li ma ci gis ne erreur monumentale ba pare wax leen naka lañ koy corriger ah foofu lañ toll de fu mu nekk nii moom mooy euh, li nga xam ne wax na mhm. ko mhm. Euh, lan lañ ci mën a jàpp loo xam ne lu positif la ak loo xam ne mën nañ ko mhm. joyanti defaraat ko wala ut beneen yoon buñ jaar boo xoolee boo xoolee ñetteelu ñeenteelu trimestre bi foofu lay commencé yéeg ci fële mais duma jël parole bi toujours mun naa di dem di dellu si ñetteelu trimestre bi président de la république lu mu jógtee mooy wone yu baax yi mu def te yu mel ni teer bi yu baax te rëy yu mel ni pooru Bargny bi yu baax te mel ni BRT bi loolu la jógte wone ko waaye infrastructure yi en général expliquer route yi mu def inauguré ko ci biir am na ci ay projet structurants yoo xam ne kenn du ko werante parce que dafa yomb comme yan par exemple comme yan BRT ok ñetti principe la transparence opportunité pertinence transparence ma parce que ñoom xamuñu li ñuy def même ñoom ñi di leen defaan xamuñu ndax naka la Macky Sall def ba échoué ñoom dañ leen di jox ay éléments de langage rek ñu ñëw di répéter comme sama waay respecté ñu waay répéter ay élément de langage moom la ñuy def financement BRT ni ñu ko defee première phase financement exploitation bi sous réserve ñu régler problème exploitation su sous réserve ñu def des choix ci affaire véhicule yi bu nekk électrique fi mu traversé dina changer radicalement le transport au Sénégal mhm. ma loolu d'accord naa ko boo Dakaree BRT ça veut dire que Dakar nga TER déet ça n'a rien à voir ah TER on parle de 36 kilomètres TER c'est un c'est un virage raté c'est-à-dire que erreur sur la demande sociale mënul weesu terre je parle pas de montant je parle pas de communication sur le montant sur les délais xam nañ ñu mu demee il fallait coûte que coûte le terre n'oubliez pas que c'était pour janvier 2019 ñëpp ne mënuñu ko def ñi d'accord def ko conditions yi ñu nekkoon économiquement ba d'accord ko ku ñu ko joxoon nga def ko ba pare charger tous les intérêts de retard allez voir intérêt de retard u terre yi naka lañ ko gérer parce que y de des clauses d'intérêt de retard regardez les montants de ces intérêts de retard nga xool PEP yi e les PAP les les personnes affectées par le projet les indemnisations ba léegi des na lu ci bare def nañ ko voyez ce qu'il y a dedans ce qui était prévu et comment ça s'est passé coût TER bi c'est un coût introuvable actuellement dinañ ko xam mais coût boobu sax moo raisonnable nga koy def ci TER boo xam ne bi da am risque d'utilisation ba pare terre bi respecté wul. principe risque d'utilisation lan nga bëgg a wax. mais saa boo defaree sa terre ba pare ne saa waay yow mu yore sa pañe jën doo ci dugg. mécanicien bi borom yére bi doo ci dugg ah kii ni ngay def nii nga war a doxale c'est fait pour qui. Mhm. c'est fait pour qui. sama papa da daan def weer wu ne ndeysaan da daan jënd xar séddale ko xale yi ñu commencé lakk ak yooyu boo ko defee dama amoon benn tante bu neex mu naan léegi xale yéen a ngi yuut yàpp yi bu ne man ñii yuut yàpp yi moo tax ba jënd xar bi. mais ñi nga xam ne ñooy daan seen doole di yeewu suba teel di am problème transport. moo war a tax nga def projet transport. d'accord d'accord merci beaucoup Boubacar dina nga baal ma dina. ñëwaat ak benn rek laa ci yokk ok boo xam ne balaa nga koy exploiter da ngay leb 13 milliards. société d'exploitation bi dafa leb 13 milliards pour mën a exploiter terre bi jeexagul service su dettu terre bi nañ ñu wax moom député la à l'Assemblée chaque mois ñaata la lay coûter. service dette naa ñëw léegi. ne naka nga mën a amee projet boo xam ne chaque mois da ngay fay ba xamuñu dara. jarul nga chaque mois da ngay fay bor. ba pare da ngay fay li nga leb pour exploiter ko. ba pare nga ne da nga bugg mu rentable. di daw cent soixante mille kilomètres toutes les dix minutes ban dix minutes nit ñi dañuy xëy suba tayal yow neuf heures gisatoo kenn. nit ñëw liggéey si bu ngoonee ñu buubu war dellu. nga ne da ngay def treize mais c'est-à-dire que erreur bu gën a garaaw terre bi. pour man li ma proposé mooy nañu fexe nu ko joxee privé bi national ak international ñu changer vocation bi def ko genre train yoo xam ne yi dina def des transports de luxe restauration ak yenn transport di ci def ay festivités des éléments de tourisme mais dama ne la exploitation terre bi je te dis su li ci kanam raw li bët. d'accord merci beaucoup Boubacar alors monsieur le ministre.